bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursaliin seydina moolana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwaan wa tamkin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ñu bokkal seexul xadim xadim rasul asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi am mbégte ak kontaan di ñaanal xalifa général kulu murit Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool ci ànd ak wér di ko ñaanal itam mbooleem njaboot ak seexul Khadim gépp di ko ñaanal mbooleem taalibe yépp mbokk yi nag ñu nekk ci weeru koor di weer woo xamante ni weeru ngëneel la weeru tuyaaba la waaye tam weeru barke la weeru yërmande la weeru gore ci safara la waaye tam weeru wi tam mooy bis bi nga xamante ni ci la nekk ci la alquraanul karim wàcc moo tax nag toogoon nañ fii woote wan woote boo xamante ni dañu ko defoon ci ndigal ak kilifteefuk Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér ak Serigne Ibrahima Mbacké mi ñuy xoole tey jëmmi Serigne Mandoumbe waaye itam jëmmi Serigne Ibrahima Mbacké mi nga xam ni moom la ñuy xoole tey jëmmi sëriñ Abibou ak mbooleem njaboot ak sëriñ Abibou gépp Serigne Abibou Mbacké moom Serigne Mandoumbe Xabaan ci bis bu am solo bi nga xamante ni Serigne bi yàgg na ko woote moom sëriñ abibu ñuy ñaanal baax a baax jàmbaar ji ñu feggool di Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Serigne abibu moom sëñ Madoumbe Xaban yore kàddu njabootuk Serigne abibu waaye itam jiite comité organisation màggalu Laylatul Qadr ca tubaab Passe moo tax nag ba ñu wootee woote ba tey ji ñëw fa yéene waxtaane nag suñu jàmbaar jooju nga xamante ni moo di Serigne Abibou Mbacke waxtaane Serigne Abibou nag dana day sëkk ñu xamle doomi sëñ ma Mandumbe la dana doy sëkk ñu xamle taxawaayam ci lislaam taxawaayam itam ci yoonu murit waaye itam digganteem ak laylatul xadar nam ko doon dundale ak nam ca meloon ak ni nga xamante ni noonu la taxaw ak njabootam suñ koy waxtaanee yaakaar naa ni yi tomb suñ ko waxtaanee rek dana doy sëkk waaye itam waxtaane bis bu mag bi nga xamante ñu ngi koy waajal ca tubaab Passe mu war a tombeek ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru koor wi tombé le 13 avril té Touba Passe Fall ci commune bu Baba garas, waye département bu Bambay région bu Djourbel insha Allah rabbi kon ñu jox sëriñ bi kaddu gi mu nuyo su nuyo paré nag dugg ci tombe yi nga xamanteni mom lañ fas yéene waxtaane Cheikh Mouhamadou Moustapha ñu ngi lay nuyu. alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatulah. mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax ci weeru kooru tedd wu nekk u màgg wi ñu ne jiital ji ziar bi ak ñaan gi xalifatul aam li tarixatil muridiya Cheikh Mouhamadul Mountakha ginnaaw buñ ko ñaanalee mu yàgg fi lool te wér. ñooleem njaboot Cheikhul Khadim. jiite jiital nag njaboot Cheikh Ahmadou Ndoumbe suñu tuddee sëñ Ibra Xujja mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Ahmadou Ndoumbe di rakkam sëriñ Ibrahima Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Habibu donc mboolem njabootu sëriñ Habib di ñaan yàlla yàggal leen ci suñu kanam li ñu bëgg a liggéeyal sëriñ Tuubaa liggéeyal ko si amoon na ñu liggéey ko lu kawe suñu jot jërëjëf sëriñ Moussa ni nga ko waxee eh, ñu tànn nag tey kenn ci njabootu Cheikh Ahmadou Bamba mhm. waaye kenn ci njabootu si Ahmadou Ndumbe mhm. di caatum sëñ ma Ndumbe mooy sëriñ Habibou Mbacké ibnu Cheikh Ahmadou Ndumbe mhm. eh, sëñ ma Ndumbe mooy waajuram ku ñuy wax soxna Assu Njaay mooy waajuram jigéen Euh, ñu tànn nag koo xam ne mën naa ne buñ nee dañ koy waxtaanee ñu ngi waxtaanee alxuraan. Mm-hmm. suñ nee ñu ngi waxtaan ñu ngi koy waxtaanee sëriñ Abibu ñu ngi waxtaanee sunna. Mm-hmm. su nee ñu ngi waxtaanee sëriñ Abibu ñu ngi waxtaanee ak bokk. dëgg la wallaay. su nee ñu ngi waxtaanee sëriñ Abibu ñu ngi waxtaanee makaarimal axlaax. Mm-hmm. ndax jikko yu tedd yu mag la yore kon su ngeen tànnee tomb boobu ni dañuy bëgg a waxtaan ngir laylatul xadar gi nga xam ne daana ko defal si Amadou Ndumbe te moom ci boppam moo wax ni sëñ Mandoumbe moo ko digaloon mhm. mu def ko ci toll ci juróom benn fukki at ndax lu jiit suñu judd la ñun fekk mhm. nañ mu di ko màggal bi mu ñu joxee ndigal 2003 ba léegi amatul benn yitti bu dul bis bi mhm. fekk na sax ñu daan taxawal ay bis waaye ba ñu diggulee suñ ci noppam suñu nopp ni bis bi daal daf ko fonk te ku ko fonkal du yemal ku ko fonkul waay di wut mi ngi ci bis boobu jox na ci ndigal boobaak léegi ñun tëddatul nelawutul ci ndigal loolu rek la ci ndigal li rek ci ngeen nekk euh, ak képp koo xamante ne tam sa Euh, soppe la ak képp koo xam sab talibi la ci loolu rek lañ nekk muy mm. Mm. Euh, ndigalul dundal leletu xadar gi di ko amal ci Touba Pass Fall mm. ngir nag dabu ci bëgg ak xemmemteefu sëriñ abibu ndax moo ko gën a leen lépp kon su ko defee nag euh, ngir ñu fàttaliku jëm ju tedd jooju sëriñ abibu lan nga ñu mën a wax ci ay jikkoom ak mooy kan ak digganteem ak sëñ Mandoumbe sëñ abibu sëñ Abibulaay Mbàkke lañ ko tuddee mm-hmm. am nañu wax ni sëñ Touba moo ko tudd. Mhm. am na ñu wax ni sëñ tubaa moo joxe tur mhm. euh, am na ñu wax ni mi ngi feeñ jamono ci dëkk bu ñuy wax xabaan. Mhm. ci 1923. am na ñu wax ni mbàmp na la feeña jamono. waaye lu ci ne taarix moo nu ko nettali. waaye li ñu wér da xam ne moom moo nu ko waxal boppam. wax na ni Serigne Touba Khadim Rasoul bi mu nekkee gànnaar. Eh, bi sëñ ma numbe di dem gànnaar di ko fekk jëloon na loxoom teg ko ci bopp sëñ abibu ñaanal ko wax ne wax ne wax ni am naa ci moom yaakaar mm-hmm. kon mën nañu fekk na sëriñ bi eh, daf nañu bi sëriñ bi jógee gànnaar ak ñëwaat moom waajurum soxna Asu yaakaar nañu su ñëwee du leen fa fekk mm-hmm. ndax mitit mititi jamono bi mu ñëwee fekk leen faat joyal na ngërëm ak ñaan sëñ abibu sama doom ji am naa ci moom yaakaar mm-hmm. sëñ abibu di doomi sëñ ma numbe mooy am caatam moo mujj ci doom doomi Cheikh Ahmadou Ndumbe hmm. ku ñuy wax soxna Assou Ndiaye jur ko soxna Assou Ndiaye mi ngi cosaanoo fu ñuy wax Touba Njigéen ci wetu Touba Mérina hmm. euh, wax na ni këruk alxuraan la këruk xam-xam la këruk diine la dëgg la am na ñu wax ni sax maamam ay maamam ay sërif lañ hmm. ci wàllu waajuram wu jigéen ci wàllu waajuram wu góor am na ñu wax ni maamam euh, Alburi Ndiaye waajuram wu góor Alburi Ndiaye ndax ki ko jur Alburi Ndiaye moo ko jur ca Jolof kon moo ne la dama doon misaal sëñ Abibu daal bu du woon sëñ tubaat mën naa wax ni buur la ci Sénégal mhm. sëñ tubaa ñëw dollee ko ci moom muy Cheikh Ahmadou Ndumbe mhm. te sëñ tubaa mooy lépp mu doon koo xam ni wax nañ ni am na fu bari foo xam ne jaar na fa mhm. ci wàllu alxuraan ak wàllu xam-xamu diine ak wàllu xam-xamu sariya am na ñu wax ni jaamal jaar na fa am na ñu wax ni jaar na ci sëñ Maxtar Bintaloo ba laataa muy dem baytu Lamine gi nga xam ne fa la yaroo nga xam ne kimtaan yu bari def na ko moom Serigne Abibou. Mhm. Euh, ba laataa muy dem ci magam Serigne Abdourahmane ndax ñoom bokk waajuru jigeen bokk sëñ Manumbe. Mhm. moom it yar na ko jàngal ko lu jëm ci xam-xamu diine ak lu bari moom la ko defee ci paaram ba bi mu ko beree la doo ko dem sanc dëkk fële dañ dem dëkk bu ñuy wax Touba Pass Fall. Mhm. Pass nag sanc ko waaye bi mu ñëwee mi ngi fa wàccoon ci kër ku ñuy wax Mor Mariama Fall. Mor Mariama Fall waaw foofu la wàccoon. Eh, ni ko mag ñi daan defee xam nga mag ñi foo leen mas a fekk ñii ñu ngi ci riyaada ñii ñu ngi ci xalwa mm-hmm. ba mu fa defee riyaada juróom-ñaari fan ba mu xëyee la wax ni nañ ko daggal kër fële fa féeteeg Mbàkke mm-hmm. fa féeteeg penku ñu daggal ko fa kër eh, fa féeteeg penku mu tuddee ko Mbàkke mm-hmm. fa nekk di jaamu yàlla di liggéey eh, di yar ak njabootam di dundal sunna Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ndax Kajoor ba mu fay ñëw dëkk la woon boo xam ne fo ak caaxaan bari woon na ci tund woowu waaye sëñ bi bu daawul batale taalibeem daawul batale njabootam mhm. taalibe bu ci masa amul tudd mooy doxagub tànkam ñëw tuddal la ko mhm. boo génnee àdduna mooy ñëw taxawul la boppam mhm. soo nekkee ci naqar mooy ñëw ànd ko yow ci loolee doon dund ba dëkk bi ma cosaanu muy tàbbi sax am na ku ma fa nett li Moodu Mbay ñëpp xam nañ ko wax na ma ne fa na bi ñëw bisu talaata fekk xale yu góor yi wattu lu ñuy wax àla boros booba mooy ñooñ nga xam ne dañuy xëq saqal seen karaw yi waaye dafa woote dëkk bi yëpp ñëpp ñëw wuyu ko mu wat ñëpp ay ni leen lii du melokaanu a murit ab murit day yor melokaanu murit dëgg la lam yan doon takk ak yooyu yëpp du ko dindi sànni moo da mbay wax na ma ni ca ñam watoon man ca laa bokk te gisuma ca ñam fa watoon ba léegi gisuma kenn ku ca dee mhm. <laughs> kon loolu waaw loolu nee na gisuma kenn ku ca dee mhm. kon loolu tamit day wane ni kon xar baax yi dugg na ci biir mhm. mu doon nitu sariya sëñ mu sëñ abi bu mus def lu dëppwul ak sariya kooku mas a gis njàngalem Seexul Xadiim aw dundi aw melokaanam rek la doon yor mhm. julli farati yi dama ko jëlle wal waaye julli yi ñu tudd junni sunna mhm. foo ko mas a fekk mi ngi julli foo ko mas a fekk mi ngi wérd ci koo xam ne si mun bi mooy sa waajur dëgg euh, mu doon am murid saadix ku bëggoon Seex Ahmadou Bamba la mhm. bëgg sëñ tubaa demoon na ba euh, sëñ mun sëñ euh, sëñ sëriñ njabootu sëriñ Tuubaa gépp la jaxasoolo dëgg ku ci mel ni Seex Saalihu Mbàkke yal na yàlla dolli ko leer ci barkeem Eh, jaxasoo woon naa ak moom. Mhm. ba benn suur ñu ñëw di ko seet si sax ñëw di ko seet si di ko ziare dalal ko ba noppi ñuy waxtaan sëñ Saliou ni ko foo mu ne ko nga Touba Pass de la ñaanal ci barkeb Cheikh Amadou Ndoumbé keroog addi ji mu jox sëñ Saliou sëñ Saliou doo ko ne addi ji dama koy ko ci bi ndax yéen kat bu dundee yàlla njabootu sëñ mu la ndax sëñ Touba bi mu ci géej kat li njabootu sëñ Touba doon dundee sëñ mu Ndoumbé doon bàyyi ci loxoon di jox maam Thierno wallaahi daa ne addi ji dama koy su ko sëñ Mandoumbe tuddee bi ko sëñ Abibu tuddalee sëñ Mandoumbe ay rango ñam daa daan ci dënnam mm-hmm. sëñ Abibu àll la ko def ñaari fan bu bañ gisante waatee da ko ne boo gisee boo tuddee sëñ Mandoumbe ma jooy sëñ ba day roy waay loolu la ko wax mm-hmm. daa donc Cheikh Ahmadou ba day roy waay noonu la meloon nag sëñ Saali bu tuddee na ko doom si mm-hmm. sëriñ Abdou Lahad tuddee na ko doom noonu la meloon nag moom sëñ Abdou Lahad Moustapha ñëw këram fekk ñu defar ay ay pré sàkket yu rafet booba pré sàkket xew ak i mhm. moom ñëwee siyaare ko sëñ dafa daanu jël ni ko ma nga maa wax ne ma damay ñëw mhm. mu ko déedéet damay ñëw pour barkeelu si daal ne ko sa sàkk yi rafet na waaye ba sëñ Abdou Lahad demee daal dindi péré ni da koy lu rafet sëñ Tuubaa ko jagoo da jël ni da ko yót sëñ Abdou Lahad ndeysaan <laughs> noonu la demoon ak Cheikh Abdou Lahad ndeysaan Cheikh Abdou ilimaani tey tay ji tudé nako dom sama hmm. rak dima bokal ndey seigne Abdou Khadir la tudé ma sama febar ñu yoni ma ñu indi ma paas bobu ma ngi jóge xel koom hmm. indi ma bi mu ñëwee ab lettre jox ko sama waajur niko niko yobbu ci seigne Abdou Khadir ñu indi ma fi ci seigne Abdou Khadir bimu ñëw seigne Abdou Khadir bimu liré atu dana ana mustafa ñu woo ma ma ñëw bimu mu dafa tép lettre fekk juroom ñetti téma dal ni ma ŋaal ma nga mu ñaan tifli ci sama gémmañ dal ni ma di nga dund di nga am barké ah. dal di jëlaat juróom-ñetti téeméer dugaat ci amlo bi ah, def ko ci ma ñëw sama demee joxal mako sa papa hmm. daal ni ma ana Abdou Khadir man ko Abdou Khadir man ma soo demee ne ko su su su feree nag ñu ko yót mm-hmm. sëñ Abdou yàlla def ca la gën oh, ndeysaan mooy sax moo doon caatum yaa mm-hmm. nag Abdou Khadir moom teewul tuddewaat na ko doom noonu la meloon ne Cheikh am Cheikh Mouhamadul Mourtala daje nañ fii ci jumaa yi Touba mm-hmm. sëñ Abibou daa nuroon sëñ blaat soo ko mosaan day mel ni gis nga sëñ blaat ndeysaan mu sukk ci ci ci ormay jumaa ji noonu fi ñuy dugal fi ñuy dugal lañ daje mais suñ abi dafa dindi kaalaam sukk ci ci ci karo yi noonu nuyu sëñ sëñ sëñ sëñ Cheikh Mouhamadoul Mourtala sëñ Mourtala da ko naa ko caatum sëñ Tuubaa caatum sëñ mën ba jumaay Tuubaa am na gan kenn nettaliwu ma ko maa ngi seen diggante koy yëkkati abi bu jugal jugal mm-hmm. xam ni kon mag ñi dañoo nawloon te woon xamoon mm-hmm. liñ yoroon mooy lan mm-hmm. noonu la meloon Tuubaa gi bu fi mosaan dugg rek du day day aalo ba ba ba muy génn ndax bëgg bëgg sëriñ Tuubaa tund kajoor wee mu nekkoon euh, euh, dafa sàmm ci diineem moom sëriñ Abibu mhm. waaye sàmm ci ngorom keroog bi ni koy yeesal ginnaawam mhm. bi ñu laajalee soxna yi masa yor yëpp amul kenn kum ci masa wàcc <coughs> te loolu yombul mhm. képp ku masa yor dalaa yor ba ni mu fi jógee soxna suñ ñi nga xam ne ay takkoo la ñi nga xam ne dañu takkoon ku ñu woo nga ni sëñ Abibu mus man musumaa tàggoo moom nga xamni nek na fi bu jog fi xamuñu soxna so xamni ne suñu abi fase na ko ngor la. deug la ndax jigen ni nu mel ku leen mën yor yor fassé wu ci kenn aw melokaana leen di yor. deug la ndax nit masna naa jaaxle ba ñëw ci ku tedd ki diko laaj ne ko dama amul jaaxle ci deug ni ko lay sax jaaxle mu ni ko ah may laaj ndax soxna yi ma yor ak ndax sa soxna yi ñoyam hmm señ tuba ni ko mu ni tek ba yag señ tuba ni ko waaw. damaa ba nga xam ne sama soxna yi ak sa soxna yooyu ak soxna yi ca wane gi kër kër ñooy am. Mm-hmm. ñi leen yore yëmu. kon jikkoo leen di yor. Mm-hmm. sëñ Abibu ci looleen ngor googu la nekkoon ak lislaam googu ba ni mu fi jóge xamuñu kenn koo xam ne mas na laa bàyyi bi mu koy lewatal ginnaaw bi mu gisuñu kenn koo xam ne amel na la bor. Mm-hmm. wala seq naag yow loo xam ne lu ko lislaam di jame. ndeysaan. amul benn dërëmit boo xam ne dencoon na ko bàyyi ko fi. maanaam lépp lu mu amoon suñ borom la ko doon jox. bu fekkoon kuy dajale la bu fi jógee dina fi bàyyi ay million mhm. waaye keroog biñ koy yeesal ginnaaw gisuñu fa dara loo xam ne lu mu fa bàyyi la ndax lu mas a ñëw ci moom mu delloo ko ci yoonu yàlla. dëgg nee na yàlla kenn du ko dencal looy denc ëllëg yow mal xiyaam la. dëgg kon kooku bu dee ngor sàmm ci ngor wala sàmm ci diine ci ci ci ci yam layam foofu la sëriñ abi bu nekkoon ba mille na cent ba ba fukki fan ak ñeent ci weeru juin deux mille quatorze mu doog a génn àdduna mhm. waaye pour wàll ne suñu borom fay na ko bi muy génn àdduna fukki fan yeeg juróom la mhm. génn ci weeru koor la génn àdduna bañ ko xoolee dafa dëpp fukki guddi yeeg juróom di laytu xadar te fekk na li mu waroon a defee laytu xaaja gi waajal nañ ko bu wut ko nag yaa xar yaag lépp ba teg ko pour waajale ko laytu xadar mhm. ñetti fan lañ ci teg mu daaneel ko ñu yóbbu ko Thiès mu génn àdduna buñ ko xoolee daa dëpp fukki guddi yeeg juróom di laytu xadar nga xam ne tey laytu xadar gi ci biir ñaanam la dugg moo tax bi ñu ko waxee sëñ Sidi Moxtaar dafa nit kooku di dem na ci bisam daal na ngeen ko fonk te yaatal ko. Mm-hmm. te lépp lu mu fi bàyyi ngeen fonk ko kooku mooy sëriñ Habibou. Mm-hmm. ñuy ñaan suñu borom dolli ko leer wàcc yërmande ci moom. yàggal fi nag ab xalifaam sëñ Ibrahima ak mboolem ay rakkam. amiin ba fu mu bëgg a yóbbu liggéey moom mu yóbbu ko fu kawe jortam. amiin euh, danaa koy wax toujours di ko mag bu la yanee. Mm-hmm. bukk la gone gu la yan. gone bu la yanee du la téeñal du ca jàpp mm-hmm. mag bu la yanee day téeñal ba pare jàpp ba pare jàpp man ko yanum mag nga yor mm-hmm. ragal warul la mm-hmm. ah dëgg la ragal warul la wala di xalaat déedéet defoo dara dañ lay def loo rek dëgg la <laughs> te ku am ku mel ni sëñ Moustapha wala nga am ku mel ni sëñ Mamor wala sëñ Talla looy ragal dara <laughs> ah dara ñoo xam ni fan leen war a yare nan leen war a jàngale nan leen war a tege ci ci ci yoon jar bu dee adduna jàng na ko bu dee wàllu xam-xam xam nañ ko bu dee yar mu ngi ci ñoom ku nekk ci kooku ñu ñu nekk si ginnaaw suñ bu di sa mm-hmm. amoo looy war a mën a porte lu sëriñ bi bëggoon dëgg kon ci loolu la sëriñ bi nekkoon ak njabootam ci loolu lañ nekk mm-hmm. ba sëriñ bi sëriñ Moussa mm-hmm. bu amul beneen laaj it ñu ngi xanaa euh, fi ñu tëjee rek ni mu fonkoon laylatul xadar ak ni mu ko dundalee ci Touba Passe Fall. waaw laytu xadar moom bu mosaan weer bi mosaan a teru li muy wax rek mooy man awma dara bugguma dara. Mhm. awma dara du laytu xadar. kuy wut sama mbég way wut nga sama ngërëm wala ngay wut loo xam ne boo ko sàkkoo da nga ko am nee na ma ko defal ci bis bi. Mhm. na ji mooy bisu laytu xadar bi mujj laytu xadar daa toog ci baas bi ni képp koo xam ne ba ngaa gis doomi sëñ Mandumbe ji ngay mujj gis nag ma xool. Mhm. bas ba ñi di daanu ñi di yuuxu ñi di joy ni señ bi lu muy wax ni min demee ci biir dama ko señ bi dama am jaaxale ma dig nga ni ta talib bi dañu am jaaxale mu ni man la man ko dama da nga ni ku bëgg gis doomi sëñ Mandumbe ji ngay mujj gis nag ma hmm man ma mënu bi dama xamal ni liggéey bi mat la ilaha illallah mënu bi dafa ma xamal ni liggéey bi mat wa at may del ci le gennad hmm kon loolu day firni mom xamna lim yore won moy lan e ta yalla na nako ba yàlla mayoon na ko Moussa ba këram boo fa duggee boo dee ñuy tuddee dof. Mm-hmm. nga xam dañ lay yeew ak takk boo duggee këram rek wér. kër sëñ bi boo duggee rek danaan tekki leen ko dootoo defate dara. Mm-hmm. dootoo dootoo saaga dootoo def dara da ngay daal nekk normal. boo feebaree doo faatoo ci biir këram yàlla aaraloon na ko kër gi. ma xam moom àgg na foofu daana wax ne ku ma rus ta fekk sama ëtt bi rus maa fa saaju. Mm-hmm. ba léegi nii fi do ëtt boo fa demee nawet fa la fa ñaari rakka ñaan fa loo yàlla defal la ko. la. ta suuf suy sell yàgg na ci lislaam boo demee ci baytil maqdis am na saxaaba yoo xam ne dañ doon jihaat ba agsi ci suuf benn suuf boo xam ne yàlla dafa sellal suuf si benn saxaaba ne ak a neexoon waxtu takkusaan ndab ma mu julli fi ñaan fi ngir su ma dee su ma demee du ma du ma dee ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci xare bi bi mu ko waxee yàlla da ko détourner jant bi takkusaan fekk ko mu julli fa takkusaan ñaan te suuf su sell saa ko waral dëgg la mu ñaan ba mu demee diwul ci xare bi kon nit fu mu nekk di jàmm yàlla ba yàlla nangu ko lu fa waay ñaan suñu borom defal la ko. dëgg la te jamono jii ñu toll jamonoy ñaan la. Mm-hmm. jamonoy istixfaar la jamonoy salaatu ala nabi la ndax àll bi lëj na lëj goo xam ne lu jàmm. Mm-hmm. jàmm ko gën. dëgg la kon góor góorlu ci ñaan ak saraxe ak dimbalante ak euh, def xol yi ñu doon tàppe xol yi ñu doon benn. ndax yonte bi sal neen seen ngeum yalla du mat lu dul li ngeen bëgg li ngeen bëgg di ngeen ko bëggal seen bokkum julit mhm. la yuminu ahadukum hatta yuhibbi li axihi maa yuhibi li nafsihi mhm. ta lolu mi ngi bëgg jeex ci société bi deug la mi ngi bëgg jeex ndax kenn ku ne bo jappé sa morom comme sa bop rek yaq yaq du am do am deug la do waxante lu ñaaw do jëf ju ñaaw do ko mëna gis ta jëf ju ñaaw ju ñaaw ci nit jox nit alal rek mooy jëf ju rafet dedet manam mhm. ñaka wax nit lu ñaaw jëf ju rafet la maanaam loroo nit ñi ci sa loxo loroo leen ci seen làmmiñ te léegi lor ci làmmiñ dafa bari trop trop trop trop yooyu yëpp ñu moytu ko ñu xam ne nekkul lu gën suñ ko defee liñ bëgg yëpp yàlla dinañ ko defal mhm. sëñ Abibu sëñ Mandumbe mi nga xam ne mooy waajuram juróom benn at la ko sëñ Tuubaa mage mhm. dinaa ci ab tënk tuuti mu am jagleel yu rëy yoo xam ne moom sëñ bi am na ko ci sëñ Tuubaa ndax ñoo bokk fuñ feñ jamono mm-hmm. sëñ Tuubaa mi feñ jamono mbacke Bawal sëñ Mëndu mi feñ jamono njax njax mi ci suufu mbacke Bawal mm-hmm. loolu ngëneel la dëgg la ki 1853 la kii 1859 man na wax ni sëñ Tuubaa moko yar moko jangal moko terbiya te ñu amna am yo xamni kenn amuko hmm mam baay mako dalal alquran mam mo antité jàngal na ko sëñ Tuubaa jàngal yar nako te ñent ñet loxo yi ku ci genn école nga mm-hmm. te sëñ Tuubaa képp ku mu yar rek doy na waaye jàngal la ba pare wóolu la ci xam-xam. Uh-huh. ba daana ko yónnee ci réewu naar di ko sottiloo ay xam-xam mu koy sotti ci ay ay ay ay papier di ko indil sëñ bi. moom Cheikh Ahmadou Ndoumbe. Uh-huh. Eh, juróom juróom la topp sëñ moo ëpp lu mu nekkal sëñ Tuubaa bépp dëkk boo xam ne sëñ Tuubaa sanc na ko bi mu koy sanc moom Cheikh Ahmadou ànd. Uh-huh. muy nit koo xam nitu xam-xam la waaye nitu yarkat la. bu la ku mosaan Sëñ Tuubaa bëggoon a defar te defe defar xam nga Sëñ Tuubaa defar daa laajoon ak takkoo mm-hmm. Sëñ Tuubaa dem na ba amul jotuk takkoo mm-hmm. te bi muy tolloo ci defar doon defar nit ñi ak ceddo yi te ceddo yi dañoo naqaroon a defar waaye ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee ay ceddo sax bu leen bëggee defar si Ahmadu Ndumbe la leen boole ndax nee na Sëñ Ndumbe ku def ci kippaaram dëwoo déewoo da nga defar da defar <laughs> allahu akbar loolee nag ko Sëñ Tuubaa defal eh, moo tax yaram ak melokaanam yi woon kenn si moom si Amadou Ndumbe ñaan suñu borom dolli ko leer amiin amiin taas ci barkeem sàq mii nga xam ne mi ngi ko defoon Daaru Xuloos dundub at ten ba déwén la ci daan def mi mhm. ko defal njabootu sëñ Touba mooy ki jëkk jox sëñ Touba junni ci kaw suuf mhm. moo ko jëkk tabaxal ab tabax fii ci Touba moo ko jëkk bàyyal toolub alal ba mhm. loolu ngëneel yooyu nag kooku mooy waajur si Abibulaay Mbakke ñu ñaan baax suñu borom dolli ko leer amiin na ci barkeem amiin ba li ñu yéene ci laytu xadar gi yëpp ñu am ci lu kawe suñu ba beneen laaj. amiin lépp mat na. jërëjëf euh, ñi ngi lay sant bu baax Cheikh Mouhamadul Moustapha mbake euh, euh, ibnu Cheikh Mouhamadul Habib ibnu Cheikh Mouhamadul Ndumbe ci waxtaanu am solo wi ak leeral yu am solo yi nga xam ni indil ngeen ko ci sëñ Ahmadou Ndumbe Xabaan ci digganteem ak Cheikhul Xadim Xadim Rasoul waaye tam indil nga ñu ci sëriñ Abibu ay jikkoom. lenn ci sax la ñuy wax ndax ku mel ni sëriñ bu soo koy waxtaanee mboolem jikko yu rafet yi di makaarimal axlaax day ñëw taxaw boo tuddee tab ga mu ni moom euh, maandu gaa nga taxaw soo nee maandu ga alxuraan ak bëgg ga ma nga taxaw soo nee alxuraan ak nam ko bëggee woon nam doon dimbalee jaam ñi di leen xettali ci wàllu digganteem ak suñu boroom taxaw kon ñu naqaree waxtaanee lañu waaye nag waxtaan wi nekkul ni yokk sëñ euh, ah, sëñ abibu dara déedéet dañ koy waxtaane ngir ndaw ñi man cee roye man cee fàttalikoo ngir ñu mën a xam fu ñuy teg suñu tànk loolu moo sabab ñuy waxtaani mag ñi kon ñi ngi sant bu baax di gërëm ñëpp di ñaan laylatul xadar gi ñu àgg ci jàmm dugg ceeg ak bisimilah rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin ci lépp luñ ci def ci ñaan salaatu ala nabi ñu defe ko nu kawe njort programme ba itam suñu xëyee jàng alquranul karim lay doon istighfar salatu ala nabi comme nak ci wéru koor lañ nekk gën ak mom do am bernde xamna ni bu ndé nak ba ca ngon nga ci yalla def bernde yi mu yaatu lol di siaré serigne bi di serigne Ibrahima mbacké mom serigne Abibu ci guddi gi nag conférence bi nga xamante ni baaxoo nañ ko def at mu jot serigne Amidou Diop euh, borom xam-xam bi mo koy def fego oustaz Abibu Fall sun dé kon nak jangama jankar yi barkel dana beuri waaye itam sëriñ xaadim kebe moo koy fanaane suñ demee nag ba asamaan set sëñ a génn ànd ak sëriñ moustapha ak mbooleem njaboot gépp ñi ñëw nag waxtaan ak taalibe kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ndokkeel ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.